mbokk yi ñu ngi leen di laabire tuub dellu ci suñu boroom ndax ab jaam waru cee jóg moom waaye saa su nekk war na koo dolli ba tax na fan yi ñu ngi nemmeeku nit ñi dem gi ñuy dem dem gu méttee méttee métti waaw mu ngi mel ni adduna lay bëgg a tukki ba tax na ñi fi desandi tey te te bëgg am ak ak gudd fan ñu ngi leen di labiré yoo xamante ne nii képp ku yàlla dogal nga di ko def suñu borom mën na laa may gudd fan. bi ci njëkk nag am na genn xasida goo xam ne sëñ Touba moo ko bind ñu koy wax mu ndax xayaat yi képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng insha allahu rabbi suñu borom dana la may gudd fan. bi ci des muy istixfaar muy astaxfirullah am na ci yoon woo xamante ni képp ku koy liggéey. bu soobee yàlla sunu borom dana damay gudd fan mooy adadu nafsi bi mooy 1947 da ngay jàng 7 jàng 40 jàng 900 jàng 1000 waaye diggante bu nekk aaya boobu nga ciy def istaghfiru rabb fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaaran yursil sama aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatan wa yaj'al lakum anhaaran nga def ko benn yoon maanaam boo jàngee juróom-ñaari astaxfirullah def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah ñeent fukki yoon def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah 900 fois def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah 1000 fois jàng aaya bi benn yoon léegi nag boo noppee nga jàng sóoratu nuux benn yoon jàng benn salaatul fatiha képp ku koy def da gudd fan képp koo xamante ne ni yàlla dogal nga nga mën a wut téeméeri xeer xeer yu ndaw yi nga ñëw ci nga gas benn kàmb nga jël limu at yi nga am maanaam bu fekkee ne ñaar fukki at nga am dangay jël ñaar fukki xeer sànni ci biir kàmb gi li des ci xeer yëpp benn bu ci nekk nga tari ci benn kursiyu ëf ko ci xeer bi ñaan yàlla gudd fan daal di koy suul foo xamante ne nii euh, du du du duñ ko gaaw a sulli incha allahu rabbi tamit sunu borom dana la may gudd fan. ñi nga xam ni ñi ngi dund nañ fi daaw seen bopp nit ñi talatuñu kenn ku faatu fàtte nañ la 12000 bismillahi rahmaani rahim képp ku ko def. boo faatoo di nga dem àjjana ki ñi nga xamante ni nag faatu nañ ba dem nañ leen ñaanal jële naa fu wér ni képp koo xamante ni def faatu na nga dégg ko nga defal ko ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim benn fatiha ñeen fukki suuratul ixlaas ak benn kursi yu kenn mënu koo teree dem tabbi àjjana te ñu gën a góorgóorlu ci di def ay salaatu ala nabi salaatu ala nabi mooy tax nit ki jege yonent bi dem àjjana sori safara na nit ñi góorgóorlu ci salatu ala nabi beneen bi ci des nag muy jaamu yàlla yàlla moom boo ko jaamuwul mu bindal la loo jaamu soo ko ragalul mu bindal la loo ragal gars yi nañu ragal yàlla nan jaamu yàlla nan topp yàlla na ñu dimbalante te bàyyi waxante wax ju bon wax ju ñaaw àdduna bi léeg-léeg da ngay nekk ak nit wan ko ginnaaw sax ñu ne la ñu ne la faatu na kon nañu gën a góorgóorlu ci tuub ak sàkk sarax képp ku mën nga taxaw ci balance nga peese sa jëmm nga jënd euh, maanaam bu dee da nga peese wu nekk cinquante kilos nga jënd cinquante kilos dugub wala cinquante kilo ceeb wala cinquante kilos mboq nga saraxe ko te yàlla rek tax nag képp ku ko def rek suñu borom dana la musal ci mboolem balaa yi ak yi xew ci àdduna bi. vidéo bii nag képp koo xamante ne nii déglu nga ko ba pare partagé ko yàlla na sunu borom guddal saw fan ba nga am te mu ànd ak xéewal ak yu wér wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu